bisimilahi rahmaani rahim aousubillahi min asheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi eh, sëriñ Mouhamadou jaañ mi nga xamante si ni mooy jëwrinu daara Munawwiru Sudur bi nga xamante si ñoo jigoon tey pour def seen cinquième phase ci eh, projet kër sëriñ kër sëriñ Touba bi muy caravane boo xam ne caravane bu am solo la nga xam ne bii mooy cinquième phase bi tey ñu amal ko fii ci pikin fi toll nii ñu ngi marché poisson ngir euh, jàllale liggéey bi jàllale liggéey waaye sàkkuwaale koom bu baax a baax a baax a baax muy projet boo xam ne projet bu am solol mu projet Kër Serigne Touba mu nekk ci éducation ak formation ak enseignement kon ñu ngi ciy sàkku teewaay ñëpp rek di ci sàkku Euh, képp koo xamante si ni am nga sa addiya wala matériel boo xamante si ni amaana bu ëllëgee projet bi dana ko soxla wala mu jariñoo ko nga baaxee leen ko rek incha allahu rabbi kon ñu ngi leen jaar bu baax leen jox seen wàccuwaay. salaamaaleykum mbokk taalibe ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di ziar suñ jëwriñ jëwriñ jaañ waaye di ziar tamit sëñ Modou Diouf mi nga xam ne nii moom moo jiite. comité kër sëñ Touba gi te doon si jàmbaar loolu kër sëñ Touba gi fi mu toll nii biñ ko tàmbaleeg léegi mi ngi toll ci at wax dëgg fa yàlla ñu def si ay jéego yu am solo nag waaye jéego yooyu li muy am solo solo yëpp bëgguñoo tegg suñu tànk benn yoon ndax xam nañu liñ bëgg yomb na sëñ Touba waaye dëgg dëgg dëgg dëgg nag coono ci koy amee te yàlla moo bindee noonu àddina lépp lu daam jaam di sàkku rek lu mu baax baax baax baax baax si coono nga koy amee ak xañ sa bopp lu bari loolu nag moo tax saasu ne li nga xam ne nii war nañu muy coono jooju noonu pour am luñ bëgg ñu di ko def kër sëñ tu Tuubaa gi nag boobaak léegi def nañ fi lu mat juróomi caravane bii mooy juróomeel bi tey jii ñi ngi marché poisson bëgg a dem Pikine salaamaaleykum maa ngi ziyaar ñëpp di tàmbalee si ziyaar bi jëw di monaawe di sudóor Sëriñ Mamadou Diagne ak jëwriñ kër sëñ Touba sëriñ sëriñ Modou Diouf tey nag ñoo ngi fi woon Pikine soxna si toog nag si daara ji la bokk dañ koy bàyyi mu présenté wu mu wax ñu nan la gisee caravane bi. salaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di leen nuyu euh, di rafet rafetlu caravane bi cinquième phase biñ toll di wax ne ñu ngi def liggéey bu am solo si liggéeyu kër sëñ Touba bi euh, di ñaan yàlla rek mu yegg ak jàmm. niñ ko tambalé yàlla na mujjantal gi raw ni wax deug fa yar projet bu am solo la biir yara ndax xol nañ ba xool mais daara yi bëri na yaraax lool waaye pour ñu am fu ñu daje ak bërëb bam te ne ñoo ko moomal suñu bopp dafay xaw a sooxe moo projet bi bu taxawé rek dina doon lu am solo. donc Soxna Moussou aujourd'hui vous êtes euh, présente euh, dans notre caravane euh, pour le compte du euh, Kër Sëñ Touba. Nous voulons savoir vos impressions par rapport euh, à, la, cravane et aussi euh, vos impressions par rapport euh, au déroulement du projet Kersen Touba. Bonjour M. Fall et merci. le projet de Kersen Touba est un projet de très grande envergure. Moi-même, je suis responsable de, de, tous les plans architecturaux et des plans 3D aussi. C'est un projet qui est très très important au niveau de Yara parce qu'il y a beaucoup de dares au niveau de Yarach, mais on voit qu'on n'a pas un lieu de commémoration au niveau du site. Et on a besoin des dares pour pouvoir former les enfants de Cheikhoul Khadim, leur mettre dans une bonne voie et leur montrer que la confrérie mourite est, une dynastie très, très, très importante dans le domaine de l'islam. Merci. Merci. Donc, c'était Sorno Moussou qui est également aussi, euh, comment dirais-je, l'architecte, l'architecte du projet Kersen Touba, que j'ai oublié que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est l'architecte, c'est elle euh, qui a confectionné le plan Kersen Touba. Donc, son nom, nous vous remercions. Salam alaikum wa rahmatullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yaqwa qawli. Bak Cheikhul Khadim. Nous avons fait julit ke ndefna yaxa in way ngooya fop no calel ke andoona yee ten i njalana cheikhul khadim to i teena ndigal fa andoona yee ten inoorna cheikh mouhamadoul mountakha fe andoona yee ten ref khalife général des mourides ta cooxa in ndigal te tat i na andoona yee ten i ñi'ta mbind islam ta ref kër sëñ touba yaag in way fop waaw in way fop to ande kaaga soom refu meen waaw kaaga soom ref meen njalano cheikhul khadim ten yoquna adna fe waaw ten yoquna adna fe fat i ande koy in fo njaaj soom i ndefu in ngoya teen fop waaw in way ngoya teen fop o fog islam o fog julit ke fop in way ngoya den assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon tawfiq jooju nañu xam ni am nañ ko ba noppi ndax ay doomi Sëñ Tuubaa ñoo ko ñaanoon sëti sëñ Tuubaa yi ñëw ñaanaat ci waaye Cheikh Mamadou Muntaxa daa ñëw ni loolu am na kon mooy tawféex ji kon nag rek waaye tawféex jooju buñ ko fowee nañu góorgóoru bu baax ci liggéey bi ndax deltu ginnaaw amatul sànq rek maa ngi ci am ku ma ku may waxtaana mu ne liggéey bi moom daanaka fi mu toll nii teg ko ci suuf moom dee sax dee sax ñu sol ñu moo ko gën waaye waaye loolu moom yaakaar naa ñun ñëpp maase nañu xam xam xam ni loolu moom loolu moom xel xel xel mënu koo xalaat dellu ginnaaw mënatu la nekk mënatu la nekk ndax boo boo booy xalaat ndax mën na nekk doo xa doo doo xalaat lan mooy waral lool mën a am kon kon nañ sant yàlla bu baax a baax te te waajal bu baax li nekk suñu kanam nag li nekk suñu kanam nag yaakaar naa li ci gën a fës mooy la 20 août la 20 boobu nga xam ni euh, mën nañ koo tuddee lancement projet ndax defoon nañ lancement bi daaw waaye ren incha allah dañ koo bëgg a tollantiwaat mu tombeeg la 20 août waaye li ci gën a neex mooy Cheikh Abdou bañ fa demee wax ko liggéey bi liggéey bi daf koo neex ba mu ne le 20 août boobu day ñëw ànd koog ñun waaye lan la jublu ci ànd koog ñun nee liggéey bi sëñ Tuubaa bii ñu sumb nee na du ko du ko bàyyee kenn day ñëw ànd kook ñun waaye du ca yam day woo ñëpp ñi ci war a jàpp ñu ñëw jàpp ci ànd kook ñun kon loolu nag buñu demee ba surtout sëñ Tuubaa bu mel ni sëñ Abdou Samad bëgg a ànd ñun liggéey bi ni du ko du ko bàyyeeg ñun kon ñun nañu gën a jàpp te xam ni fi ñu jàpp foofu la ndax mbir kat boo jàppee ba Cheikh Mahamadul Muntaxa ni maag yéen ñoo koy ànd na ngeen xam ne am ngeen tawféex ba noppi te dinaa ñaan sëñ tubaa ngeen dañ see tawféex sëñ tubaa ak ngërëmam ku mel ni sëñ Abdou Samad ñëw ne du ma ko bàyyeeg yéen maag yéen ñoo koy ànd na nga xam ne la nga jàpp dëgër na boo jàpp woon lu dëgër kenn du ko ci jàpp ak yow kon ñi ngi sant bu baax a baax waajal la wee ut boobu ci lépp nag ci communication ci ci ci organisation ci lépp nañ ko ci waajal bu baax a baax kon yaakaar naa tey buñ fi jógee tey li doon suñu yitte mooy dëgg ma la wee ut boobu ci xeeti wàcc wa wàccaay yëpp ñu ngi ñaan suñu borom ñu fekk ko tatal ko te liñ ci bëgg muy ngërëmal sëñ Tuubaa yàlla nañ ko ci amee ak projet bii nga xam te moom lañ dëgmal yàlla na sottee ci le 20 août boobu ci barki sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf